asalaamaaleykum video bi ñuy def tey dañu koy jëmale ci coow li nga xam ne moom moo jib fan yi muy euh, coowul pétrole mu mel nii am na ay wax yu bare bari yoo xam ne yëkkati nañ ko te ñu ci bari nekk ci ku jëg politique gi mel ni am na sax ci ñoom ñoo xam ne lañ ca yëkkati euh, bokkut ak dara li nga xam ne dafa ndoroo ak dëgg ndax euh, liñ ci jublu rek mooy na saxal xelu sénégalais yi ba bëggoon rek indi ci ay leeral ngir ku ci nekk ci ñun xam mbir mi naka la tëddee. li ñu le contrat entre Franck Timis ak euh, état du Sénégal Abdoulaye Wade moom moo signé ak Karim Wad c'était le 17 janvier 2012. Les deux contrats ont été signés avec la société Petrotim en janvier 2012 pour

mom lay nguurug Sénégal di am ci bénéfice ci lañ koy yobbu ba 58% kon liñ mëna japp tay moy mooy Abdoulaye Wade la ñu négocié président de la république daf koy yok ba Sénégal gis ci boppam. parce que da ngay dégg ñu tok ne contrat pétrolier yi contrat gazier yi dañ ci loubal Sénégal jot na ay milliards yi milliards. ay waxi kessela la. ko dégg et pourtant le 19 janvier 2012 la Aly a Ndiaye un rapport au niveau du conseil des ministres. le 19 janvier 2012 contre toute attente Ali Ndiaye ministre de l'énergie et des mines présente au conseil des ministres deux projets de décret. mais ma ne ko xamal ne ko 19 janvier que le président Macky Sall président wax soo koy wax da koy teg ci loolee lepp dara du ci dëkk waaye mu mel ni kenn ci ñom itam ko xam day jéem neusexal nësaxal xelu Sénégalais yi di wax lo xam limi wax day woro ak dëgg muy Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye benn bi ci njëkk wax moy rapport de présentation bi li mu ci njëkk wax moy rapport bobu ñi ngi ko présenter ci ben conseil des ministres te wax joju wërul qui l'a présenté au conseil des ministres et au président de la République un rapport frauduleux concernant les attributions des périmètres euh, Caillard profond et euh, Saint-Louis profond. Et tax wérul mooy soo les ci mois de juin le conseil des ministres a le 7 juin 2012 conseil des ministres bi ci am moom lañ njëkk a délocalisé boobu lañ yóbbu Saint-Louis C'est projet de décret yañ fa yañ fa jël mooy li nga xam ne dafa jëm les règles de l'organisation et fonction de l'ISEP de Thiès le 14 juin 2012 mu amat beneen conseil des ministres boobu ñu ngi ko defee Kaolack mooy deuxième conseil des ministres bu ñu délocalisé boobu texte yañ ca jële itam mooy dañoo adopté le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2012 le 21 juin 2012 le conseil des ministres amul ndax boobu dafa fekk président de la république dem voyage teewee la conférence des nations unies sur le développement durable Rio plus 2020 le 27 juin 2012 conseil des ministres bi am troisième conseil des ministres bu ñu délocalisé te boobu mi ngi amee texte yañ fa wax ak conseil ba dafa examiner adopté le projet de loi porte en code de transparence dans la gestion des finances publiques donc si vous décret bi nga président Macky Sall jël le 19 juin 2012 le 19 juin kon Abdoul Mbaye si conseil des ministres wax na lu wéru te loolu nag du guléet ci Abdoul Mbaye am conférence de presse c'était le 19 avril 2018 avec les leaders du front de résistance démocratique et sociale Abdoul Mbaye fa wax manifestation au moment de terminer notre intervention la lecture de la déclaration du front nous venons d'apprendre le décès d'un manifestant à, à Bien évidemment, bi nga xamee ne xool na ba xool gis na mbir mi kat teguwul ci dëgg lan la def dafa dellu si waat daal di ne man kat dañ ma induire en erreur kon tey su ne décret bi moom Abdoul mbay moom moo ko signé avec le président Macky Sall daal di taxaw ne ne rapport de présentation boobu kat dafa amoon yoo xam ne dañ ciy juum man mii signé ko juum naa ci loolu dugguleet deux ans, trois ans, cinq ans après, venir dire qu'il y avait des informations qui m'échappaient. Hmm. Parce qu'une signature, c'est important. Et en plus, parmi les éléments... Vous voulez dire quoi Que lui-même avait signé à l'époque Oui, il, avait signé à l'époque. C'est-à-dire que s'il a posé sa signature, c'est qu'il présume et il atteste que l'ensemble des diligences ont été remplies. si Petro présentation et mieux Franck Timis m'a ñuy wax sax né dafa solvable financièrement il alal fait nga xamné lay licence pour explorer euh, fi ci ci Saint-Louis ak ci Kayar loolu wérul ndax Liberia Franck Timis mu ngi investir 300 millions de dollars te Sénégal gi 100 millions de dollars la fi investir donc il investir 300 millions de dollars jënd licence fait une millions de dollars nga financièrement les compétences requises pour l'exploration. exploration ce politique les blocs sont disponibles ou étaient disponibles et libres mais il fallait des gens qui soient en mesure de mettre leurs milliards comme on l'a fait depuis plusieurs décennies et de ne rien trouver de partir mais ces gens ne sont pas sénégalais il n'y a pas encore de sénégalais qui soient qui veuillent mettre des milliards dans la mer à jeter des milliards dans la mer. Si on ne trouve pas de pétrole, on part. Nous avons des lois que nous avons voulu suffisamment incitatives pour attirer des gens qui prennent le risque, qui savent très bien qu'ils veulent faire des milliards, les jeter au fort de la mer et repartir. Et il faut bien qu'ils y trouvent leur compte. il faut bien qu'ils y trouvent leur compte. Abdoul président Macky Sall Ndiaye bi fi coowal Habré ji jóge Abdoul Mbaye daal di nangu xaalisu Hissène Habré ci 16 milliards coow li jëpp président Macky Sall ngir sàmm image Sénégal daal di koy wàccee boobu Abdoul Mbaye premier ministre la woon mais bi mu ko wàccee Abdoul Mbaye lan la wax li tax ma jël 16 milliards yi nee na amul benn loi boo xam ne doon na bañ blanchiment d'argent bi may jël xaalis boobu xam nga loolu irresponsabilité gënu ko weesu xam ngeen li jëf jëf ju mel noonu nga xam ne kii lu mu dugg tey génn ci suba du koo xam ne dañ ko war a dénk dénk sax ab micro ndax du koo xam ne ku responsable la mais mieux Aliou Ndiaye dafa wax ni abdul mbay dafa am 6,09 pour cent ci ay part ci entreprise bu ñu woowee Solid Mine boo xam ne dafa am concession minière d'or boo xam ne mi ngi toll ci 30 tonnes de réserve bi ñu publier rapport ITE bu 2013 Abdoul Mbaye gis ci turam à la page 87 ci la dogay jaay ay param ci ay milliards yu bari Monté transaction bobu mu def mom lay bañal Frank Timis Té lolu motax fi mu acharnement bi mo koy def ci diggante le président Macky Sall ngir lim ko waccé def ko aussi ci Ali Ngouille Ndiaye ngir li mu ci révélation yi mu def ci moom mais Abdoul Mbaye ku ci nekk xam na ne bi mu yoree nguur gi ba léegi deltu gannaaw lay def amul benn compétence ci moom la ñu gisee tey Sénégal am benn recul considérable à l'indice doing business nga xam ne dafay mesurer l'attractivité d'un pays par les investisseurs mais l'économie sénégalaise dafa wàccoon moonte bi ñu ko remplacé premier ministre Sénégal ci la gagné waat le président Abdoulaye Wade signé woon Macky Sall dafa ñëw gën koo defaraat

pétrolier ñu wax ñu mbir mi naka la demee ku ci nekk xam ko waaye politiciens yi lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy wax rek ngir fexe ba yàqal nguuru Macky sàll waaye dara du ci dëkk maa leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.